voilà mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ci ànd beeg euh, programme Thiès Info ñu dellu ñu leen jaajëfal leen saa su ne ñëwaat ak yéen euh, seen émission politique à tey nag on a tout le plaisir de recevoir si ci plateau Thiès Info Ibrahima Diouf responsable politique APR nekk fii ci diwaanu Thiès Ibou Diouf maaleykum salaam sëñ Bamba maa ngi lay nuyu di la gërëm aussi ci invitation bi dalal bi di nuyu aussi seen kilifa seen directeur. Euh, monsieur Sey Latir donc di rafetlu liggéey aussi bi muy def si dëkk bi à travers ci group Thiès Info point com. alors dañuy tàmbali waxtaan bi ci euh, euh, Covid 19 gis nañ taxawaay bi nga xam ne kenn ku nekk am na ko ci askan bi rawatina les acteurs politiques mais également Ibou Diouf ci beneen facette mu yëkkati ay masques yu am solo jàppale ko donc askanu Thiès jëm ci wàllu masque taxawaay bu nu mel muy facette bu bees boo xam ne xëy na gis nañ Ibou Diouf def ko ci Covid 19 lan nga bëgg a wane ci anam loolu nga def. Euh, lenn rek lañ ci lañ ci lañ ci am nga loolu euh, dafa nekk loo xam ni war na ku nekk euh, parce que dafa am ay mesures yu président jëloon forte ci dëkk bi dakkal yëngu-yëngu yëpp ak déplacement yi biñ demee ba xam ni sénégalais yi attanuñu loolu mu yolomal yolomal mesures yi bàyyi nañu déplacé wu mais waxul ba tey feebar bi mi ngi fi ñëpp xam nañ feebar mi ngi fi waxul nañu nañu jege feebar bi nañ ko daw la wax léegi dañu war a circuler mais dañuy war a takk masque ba pare di raxas suñuy loxo waaw ñu jàpp ne am na ñoo xam ne amuñu lu ñu wutee masque am na ñoo xam suñ ko amee dañ koy jëndee ceeb wala dawlin am na ñoo xam ne leneen lañ koy def dañu am parlu wuti masque ñu ne ñu ne ku ne dafa war a takk masque léegi sunu sunu au niveau di du du APR euh, euh, madame le ministre de la femme Ndeye Saly président jox ko instruction mu lancer récolté. ay masques au niveau de Fane Benno Bokk Yaakaar au niveau de Thiès madame la ministre Ndeye Tické nekk kilifa parti bi lancé appel bi au niveau des femmes Benno Bokk Yaakaar régional donc gis nga waa Mbour karoog ñëw nañu indi euh, ci njiital Sira Ndiaye honorable député waa Tuyaawan ñëw nañu indi ci njiital Seynabou Gaye Touré président euh, conseil départemental bu Tuyaawan euh, mu récolté yëpp nga gis nombre da masques bi nga xam ne waa Thiès aussi jóg nañu femmes yi dugal ci seen loxo waaw toll ci deux cent mille et quelque man donte góor laa waaye comme masque rek la ñu wax war naa mën a indi sam participation et am na yeneen ñi ko def président Ablaye Dieye def na ko ñeneen ak ñeneen def nañ ko ñëw teg ko ci loxo madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye mu correcté ko ñu jox ko femmes yi ñu yóbbu ko niveau national sénégalais bu nekk mën a am masque pour pandémie bi mën fi jóge parce que suñ ko ga suñ ko gañewul daf ñuy gañe te il faut ñu gagné ko donc lu ñu man rek pour joxe ay masque ñëpp takk ko dañ koy def loolu dañ ko jublu ci instruction président la république joxe war na ku nekk na ku ci mën a dugal sa loxo rek waroo xaar quoi loolu lañ jublu également bi ci kenn ku nekk suuf sa loxo au niveau de nga ci am waaw xam dafa wax ni il faut une démarche communautaire pour mën a xeex pandémie bi parce que suñuy dem mbay wax ay cas communautaire donc dañu war a fàttali président de la République kenn ne jàpp ne feebar bi mi ngi ci yow du Macky Sall mooy ñëw di wax puusal bul nduñu kee wala bul dugg fee ku ne yaa war a jël sa démarche communautairement pour mën ko xeex moo tax ñëpp mën ti dugal seen loxo parce que feebar bu fi li ñu bëgg a yegg ci liggéey ëllëg plan Sénégal émergent Sénégal yéeg si kaw duñ ko mën a am il faut faire bu jóge fii ba pare moo tax lu ñu mën ci xeex ko rek kenn ku ci nekk ñu ngi la ci woo loo ci mën a gën a dugal sa loxo nga dugal sa loxo ci njiitu réew mi am lu toll ci 1000 milliards mu mu mu génne ko dugal ko ci ay euh, secteurs yu yu yu wute taxawaay boobu également lan moo ci sa jàngat. no xanaa rafetlu ko parce que euh, ku ne xam na ne président de la république day déglu askanam dafa leen yërëm parce que loolu biñ ko def tey gis nga ñuy recevoir dons yi ak mbégte biñ ciy àndal parce que jëlee na leen fu sori xaalisu réew mi senegale yëpp ñoo ko bokk waaw yeexaa nga am na ci parce que lépp ay commande la war a doon mënul gaaw parce que feebar bi daf ñu bett feebar bi waxuñu jour la deux laay ñëw dafa xëy ñëw donc il faut que mu am yeex mais nag li am solo mooy kooko ko jox rek jamono bi nga koy jox dafa mel ni tey la ko gën a soxla donc le ministre Mansour Faye mi ngi góor góorgóorlu ñu jàpp ne président sax wax na ne bu dayul après dina dolli parce que bëgg na sénégalais bu nekk sentir ni mbas mi xew sama état jege na kon président de la république Macky Sall li mu def ñëpp dañ ko rafetlu dayee que bëgg na Sénégal bëgg na jàppale askan bi nga xam ni ñoom ñoo gën a impacte ñu mën di gis seen bopp mën a génn fexaar est que jàppoo ne xëy na également la ji am na ci wàllu mesure yi keroog laaj naa ko médecin chef régional bi ñu toll ci 20 cas 19 cas ñu waxoon l'heure est grave ñu toll également ci ay plus de 1000 et cas quelques l'heure plus grave assouplissement am ci mesure yi mel euh, feebar am question boobu ñu bëri dañ koy posé ay nit ci plateau télévision bi lan moo tax cas yokk ñu yolomal loolu nag ngeen war a xam ni président de la République bokkul ak ñeneen kaa yu yokku warul tax nga tangal. est-ce que déglu France bi bokk. non non non c'est différent xam nga kaa yi bu yokkee nga gën a tangal am na senegal yu dee la te Covid 19 du leen rey c'est-à-dire que kaa yu yokku warul takk yi nañu war a tëj nit ñi ci kër yi parce que ki nga tëj ci kër gi aussi mënoo ko dundal chaque jour xam nga Sénégal ni muy dundee da gis kër yoo xam ne benn néeg trois personnes ñoo ko dëkkee kenn mënul may du sa morom donc li li mën a am rek mooy ñu yolomal la pare exister takk ay masque nekk farata ci ñëpp kuy génn nga takk masque loolu mais sénégalais gisoo nañ ci d'accord ak président mais demoon na ba metti nit ñi mënoo leen a tëj ak conditions yi dañuy daw dépense par jour Sénégal ñi am salaire di fayeeku matuñu matuñu dara donc li président def rek mooy meilleur su amul woon beneen solution leneen loolu defoon heure bi duñ ko tal duñu toog fi naan dañuy def émission kon gars yi ñu ngi yóoxoo di xeex at yi te loolu dara jaru ko wax ci euh, APR euh, laataa ñoo ñëw ci APR ak taxawaayam bi mu am Thiès donte gis nemmeeku nañ ne divergence am na ci euh, ñenn leaders yi également coow li bari na si mais bu ñu ñëwee également ci sa jëm yow publique euh, fan yi génn Thiès Info defoon na benn article euh, cité la si parmi ñi nga xam ne donc ñoo gën a influent au niveau de Thiès euh, bi nga liire article bi lan la la def. non en fait article bi avant koy liir ñu bëri dañ ma woo di ma félicité di ma encouragé xaw ma woon sax lu xew ah. après lañ ma yónnee ma dugg sa Thiès Info gis ko ma woo seen PDG félicité ko parce que aussi journaliste homme média boo gis dafay am ci dëkk bi muy nekk. ak ràññeeku di xool kenn ku ci nekk puissance am fan la toll ak kenn ku ci nekk ban nan lay nan lay defee politique donc journaliste bu nekk mun na def xayma xalaat génne ko li ci am solo rek mooy bi mu koy génne bett na ñër fa xëy rek génne ko tàgguwu ci kenn li ma ciy sant rek mooy kenn neewu ma li mu def du yoon dañ ko dañ naan li mu def nii lu mu war a def la maa ngi ciy félicité la Latouf moo frère aussi ci la bokk ak Khady Sène. est gëstu nga lu tax. lu tax ñu boole ci ñi gën a influent. non affaire xam nga xam nga man. parce que Ibou Diaw tamit a coow bari na ci xam nga xam nga man xam nga man loolu loolu loolu moo ko sax gën xam nga lu may def gën a góorgóorlu damay jàpp ne euh, influent moom mooy koo xam ni kàddoom dina yegg fenn parce que man APR aussi ñëpp laa xam ñëpp laay seeti donc kenn tënkuma ci kenn donc loolu dafa am solo ci ndaw buy politique ne fii ngay yem doo dem faneen euh, kenn du ko def. donc fépp laay dem ñëpp laay seeti te maa ngi jàppale président te bu ko attaqué avant deux heures de temps yi topp dinaa dinaa dinaa wan président que attaque bi neexuma ki la attaqué tegu ko fenn attaque politique la réponse politique lañ ci war a def loolu suñu defar duñ ci xaar kenn quoi peut-être la mais yàlla baax na xam naa ne kër yi ci kanam mooy ëpp mooy ëpp euh, gëj naa ko dégg gëj naa ko dégg. Mhm. Euh, Ibou Diouf xamee woon nañ la ci Papa Siré Dia tey Ibou Diouf euh, ñu gisaat ko feneen ci ci ci beneen anam également. lan lan qu'est-ce qui se passe en fait APR moo moo moo am divergence ba tax na kenn ku nekk bëgg a xàll sa yoon wala wala lan la lan mooy véritablement le problème de l'APR à Thiès. Euh, APR amoon na problème mais instant yi ñu nekk amatul problème parce que bi ñuy jëm ci élection am na beneen jeu bu ñu nekkoon bu ñu ci élection daa am beneen jeu bu ñu nekk instant yi ñu toll nii APR ñëpp dal nañu. di déglu parti bi déggatoo fi benn enjeu gis nga ni mu meloon foo fekk am na ku yuuxu fii yuuxu faa président moo changé tournure jël madame la ministre Ndeye Tické teg ko ci dëkk bi def ko sunu ministre muy sunu cër ci gouvernement du Sénégal ñun waa Thiès. non on parle pas de Augustin que département je parle de commune de Thiès de manière générale. il faut gars yi di bañ a tardal seen bopp ci monde rural bi Thiès électoral la mi ngi ci commune bi. ah bon da nga ci ma leen ci. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la mais doole ji mi ngi fi la preuve en 2014 dañoo gagné monde rural bi mais ville bi la ñu perte moo tax Idrissa Seck gagné conseil bon donc enjeu bi mi ngi ci ville bi man je parle de ville Thiès ville de manière générale donc man foofu laay waxee ki ñu fi teg mooy sunu kilifa ñi ngi ànd jàppale président waxu APR ay data yu moom man bàyyi naa fu mu toll li des mooy jàppale Macky Sall mu eggalee liggéey bi mu mu sumb. jublu ci liggéeyal ëllëg loolu mooy sama bu PS moo gënoon garaaw bu PDS moo gënoon garaaw non ni parti au pouvoir mënul ñàkk loolu loolu amul fenn parti au pouvoir mënul ñàkk lool ay guerre de positionnement la mais heure bu ñu fi tollee ci war a fal président Macky ñun ñëpp dañuy ànd doon benn bouclier fal ko loolu moo am solo. guerre de positionnement bi. mënul ñàkk mënul ñàkk non non ñu euh, euh, ñoom ñoo ñoo gën a andi divergence. non non mënul ñàkk divergence kenn indiwu ko ay position la rek mënul ñàkk. parti bi mooy dox président di liggéey ku ne bëgg ci bokk ku ne bëgg ci gis sa bopp loolu moog politique ñoo ànd l'essentiel bu ñu saagal ndey ndey bu ñu xuloo bu ñu xeex mais ay positionnement fii laa farn kii moo gën a baax loolu mënul ñàkk ci politique. à dix mois des élections bu fekkee report amu ci euh, euh, fi ñu toll nii jembe ñu ngi wax xëy na élection bu war fas yéene am. ñu ngi ci ay fukki weer ñun ñu dem ci élection euh, lan nga jàpp ne moo war a nekk taxawaayu parti bi ngir si élection yi ngeen. de élection élection mën a guñ ci wax fu mu toll nii benn combat la ñu am muy pandémie bi nañ ko fi jëlee ba pare. élection mënu ma ci wax dara lu ma ci wax mun nañ ko dindiwaat donc li am solo mooy ñu xeex pandémie mu jóge fi mettre président de la République à l'aise ba moyen yi muy def ci pandémie bi mën dem paneen ñu yóbbu Sénégal émergé ko loolu la diggoon sénégalais yi muy laaj réew mi te loolu la bëgg def. xeer bi rek moo ko mën a yàq donc nañu xeex feer mu jóge fi. Euh, situation bi à ci wàllu foncier coow li bari na ci wàllu suuf si euh, sa première impression ci wàllu foncier à non ñiy coow ñëpp ñiy coow ñëpp nekkuñu ci dëgg xam nga tamit ñun mënuñu nekk parti au pouvoir benn ndaw na ci pouvoir bi la bokk génn ci ay presse di wax ci waxi suuf. loolu loolu c'est pas normal non gis naa ay personnes yuy def génn def ay ay vidéo di wax ci ay suuf ay Lamine Gaye et am na quoi loolu amul njëriñ saay service concerné yi bu fekkente ne suuf si déggoo nañu si ñuy liggéey kenn ku ci nekk la nga ci war a def nga def ko ci mais bi monsieur Djibi si dikkee a Thiès. Ah, da nga jàpp ne Lamine lam ca wax waru ko ca wax. non ça loolu chantage la dafa wax pour am mais waxul pour wax dëgg. ah bon waaw bien sûr parce que yow mënoo wax ni kii lii la fii la jalgatee yoon mënoo ko wax. donc dafa non non non attends non pas ay xeex Pape Sira dama ne li ma wax li mu wax ci suuf si. daa ñaaw loolu kenn du ko def parce que yow li ngay wax da nga wax pour am parce que dafa ne nit ñi bu ñu attaqué ñu jox leen kenn musu fi attaqué bañ jox la il faut que aussi cohérence am ci mbir yi mënuñu ànd ak Macky administration nekk fi Macky Sall nommé xam ne suñu parti la bokk mu ñëw nekk receveur des impôts damay à benn ndaw ci parti bi taxaw di ko attaqué loolu c'est injustice rafetul. mais attaque yooyu est-ce que ci Ibou. non ci administratif du benn. Mm. ki ngay maire yi fi nekkoon avant jibi si di ñëw à Thiès musuñu juboo ci benn affaire bi mu dëkkee def na benn benn coordination benn commission boo xam ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk gis nga ci sa bopp ak service concerné étatique yi nga xam ni état bi ñoo fi administration Sénégal ñu seq suuf di ko doxal lépp nekk ci yoon loolu benn citoyen amul lum ci mën a wax lu dul rafetlu ko soo bëggee nga bind. dem demande non ça am mais amul argumenté wu ko damaa bëgg a am damay yuuxu loolu responsable loolu kenn du ko def. cest à soo bëggee am da ngay bind ñaan donc bu ñu la mayee nga jël bu ñu la mayul may nañ sa morom cest à loolu moo gën a correct ci ndaw buy jàppale Macky Sall donc liggéey bi nga xamante ni tardé woon depuis lépp bloqué bi jibi si dikkee a Thiès bi mu rencontré maire yi li ñu ko njëkk wax mooy sunu suuf si dafa taxaw Thiès waa yu bëri commune Fandène lañ dem dëkk ji mais loolu erreur la ñi nga xam ne jox nañ leen nag attribué leen ay. loolu taxul Lamine di yuuxu également. non affaire yuuxu bi moom amu ci. Ceesuwaay yi ñu jox leen ci. non non jox nañ ko ñu ko jox ay Ceesuwaay lañu. mais suñu la joxee. defoo non commune laa wax. non ñu bëri génn nañu parce que dafa amoon lenteur avant jiw si di bi mu dikkee ñu affecté waat terrain affecté ko ñeneen ñooñu yow mi ñu la ko affecté bu fekkee toog at defoo ci dara dañ koy nanguwaat jox ko keneen suuf kenn moomu ko dañ la ko boo ko mënta utiliser dañ koy nangu jox ko donc dañu bëgg nit ñi tabax Thiès gën a taaru gën a rafet loolu mooy mission bi mais lu mun di xew nag su fekkee nit jalgatiwul yoon amoo argument boo ko mën a attaqué. mais non wo ñëpp ko dégg ci panel yi la ko def peut-être attaque bi soriwul mais argumenté wu ko gars yi woo leen attaqué ñu may la dama leen di attaqué loolu xale mu daw moo koy def musu musuma gis kuñ fi may parce que attaque moo la ko may non loolu booy attaqué nit da nga koy attaqué ci argumenté ko su dee nga ne lii la def fee lu bon. su dee administration nga ne lii def waaye wax nii rek loolu rafetul nañ ko bàyyi ñu xam ne Thiès ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo war a ànd jàppale Thiès donc surtout nag ki ñu fi indi bokk sunu parti am confiance président la république ñun ñoo war a njëkk a nekk bouclier am pour défendre. nan nga gise liggéeyam bañ ko euh, tabbee mu nekk euh, euh, ministre ba léegi moom madame la ministre Kika Ndiaye ci liggéey bi nga xam donc mu koy def au sein de l'APR naka naka naka ko ko jàngatee. non liggéey bu rafet ah fédéré. Ndeye Tické Ferreira a beaucoup de monde ici à Thiès parce que li gën a li li nit ñi gën a bëgg ci ministre loolu la leen defal mooy yëg leen di leen nemmeeku di xam fan nga toll njabootu Macky Sall réeratul Thiès parce que madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye mi ngi ciy sàmm ñu bëri. nañ ci benn kenn ku bokk ci yéen ndax ay coow. waaw loolu c'est normal. Euh, euh, loolu ànd naa Ferreira. non ànd na waaw ànd parce que gis nga parti politique du daayira suñ gisee ku ñu war a yar dañ lay yar. loolu je suis d' accord parce que nit gi il faut nga wan ko ne mënee naa ne ba pare ñu doog ko ànd. yar yegg na ba ci. non bien sûr bien sûr parce que xam nga moo tax sooy attaqué nit ci ay fait politique mënu la topp mais boo attaqué nit fi maa neex nii rek teg ko ci wax yoo xam ne tegoo ko fenn mais aussi ñu wan na leen li nga wax yoon nanguwu ko traduire la en justice loolu yàgg na ci parti. parti la ñu bokk tekki ñu duñu yóbbante ci yoon nit ñi ñoo war normal booy attaqué di nga attaqué ci ay fait réel yoo xam ne ñëpp dañ naan lii mu ngi nimee diw wax na ko loolu kenn mënalu la ci dara buñ la ci naree topp ñëppay jóg mais su dee da nga a yor yow sa làmmiñ ne da ngay attaqué nit pour lu neex beneen nit kooku wan la ne man lii nga ma wax yoon mën na la ci topp donc non xaw ma loolu du ma ci sori parce que passé na amatul sens ki ko defoon sama frère d' ci woon trouvé wu nañu xam na ne d' ci sama position la je avec Ndeye Tické avec le président de la République donc ñun ñëpp dañu war a ànd ci mandat taxawaayu madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye jamono ji euh, ngir fédéré loo xam ne dafay ratax jëm ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ne bokk parce que fu toll dañoo amul benn yitte bu dul pandémie bi wax ci politique sax du jekk dañ ciy dugg nii rek mais jekkul ndax feebar bi dafa nekk loo xam ne dañ ko war a xeex mu gàddaay jugee ci àddina bi ñu mënaat suñu bopp doo ko wax waxi politique. mais lépp luñ ci war a def pour parti bi soudé wu madame la ministre pare na pour def ko parce que président Macky Sall. jox na ko ay institution yoo xam ne mooy jàppale ci sénégalais yi jàppale ci Cees waaye de manière générale tam muy. boo demee ci département bi également noonu la ci la ci les maires yi bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar noonu lañ ko amalee. boo demee Tassette Mamadou Thiaw def na ko nga dem Thiénaba Talla Diagne dem na ko def na ko nga dem euh, euh, Kër Moussa le maire mu Cissé également def na ko taxawaay boobu nga xam ne ñooñu Macky Sall lañ te it yor ndombal tànk am bi ñu am ci Covid 19 bu la ko gisee. ah mais man département bi la ñu bëgg. Ibou lan yomb na non amul amul enjeu. natu li ngeen ko lajj ci non non non pas naturellement noonu la mos a département bi amul enjeu enjeu bi mi ngi ci commune bi mais maire bu ci nekk maire yu bëri ci département de Thiès gëmuñu woon président de la République ñëw nañu jàppale ko def nañ ay résultat dañ leen di féliciter mais munuñu dugg ci seen gestion mais kenn ku ci nekk yaa ngi def li nga mën pour gën a soutenir le président. am na ci ñoo xam ni namee guñu leen maire kese la ñu ñeen yenn responsabilité yi ñu ngi leen di ñaan responsabilité yi ñëw parce que ñoo bokk département de Thiès mais nag fu ñu waree def ci ci département de Thiès nañ def ci commune bi quatre-vingt-quinze yi cinq yi def ko ci département waaw parce que commune yi mooy enjeu bi. yaa moom ngeen amul leader nag Ibou. waaw am nañ leader non par par par de Thiès du affaire leader Thiès affaire réalisation la li fi président Macky Sall def. am na ñoo xam ne moo tax mu bateel leen mooy ñu dëkkoon ay zone zone zone zone nga xam ne mosuñu am ndox si àddina at ñu tëj seen cour amuñu ndox promoville amu fi woon le maire Talla Sylla maa ngi koy saluer de passage sunu lampa mu def na ñoo xam ñu ngi bateel Macky Sall ndax loolu te pas pour leader buy taxaw di yuuxu ànd ak ay boy yu amul ñu voté di yuuxu loolu jëmalewul kenn fenn li am solo mooy réalisation yi président def nañ ko continuer def ba bu ëllëgee Thiès bokk ci ñu koy tàcc. lool la ñu ne fii xëy na démarrage bi ñu ngi koy sàkku. Euh, euh, euh, chemin de mu ngi fii démarrage bi ñu ngi koy sàkku lan mooy message bi ngay lancé. ngir parce que Thiès Thiès waaye également ñu bëri ñu ngi xaar démarrage. non démarrage chemin de fer peut-être président Berkut mu namee na directeur bu bees Kibili. donc dañuy jàpp ne li mu waxoon suñu panel bi ñu fi defoon alors présidence ci liggéey président taloon ci ci raay Euh, ñu ngi avancé bu baax parce que président fan yii yëpp da ngay gis conseil des ministres muy am ay nomination yoo xam ni secteur ferroviaire la loolu lañ ciy ñaan yàlla mu gaaw sotti. Dakar ba ma ko dégg naa ministre secrétaire d'État bi. bi mu ñëwee. li mu ci wax non non pas diggé. parce euh, fii ñu toog ci place de France fi la Macky Sall waxoon le 2 avril. Euh, Farax gisuñu ko. yeneen diggé am na fi également gisuñu ko. ba tey see xam nga xam nga aussi bi président taxaw di diggé. lii xew suba sax xaw li mu bëggoon rek la wax. tey pandémie mi ngi nii dugg ñaata milliards la ñu génne lu xajoon foofu ñu dugal ko ci askan bi ñu lekk ko parce que dañoo am mbas tey jii année bi kenn du ko comptabiliser ci bilan wu Macky Sall. kon mbas bi nii kenn du ko ci bilan wu Macky Sall que amuñu recette dëkk bi li fi am yëpp lekk nañ ko donc 2020 dafa nul donc dañuy ñaan yàlla 2021 bañ a mel nii pour ñu mën a dabu foofu la ñu toll. kon fi ñu toll nii mooy jéem a jàppale président ba mooy askan bi respecter mesures barrières yi. ba mbas mi mën fi jógee ñu mën a taxaw nag nekk ci leneen loolu mooy dëgg nañ taxaw ci loolu moo gën détail bu ñu mën a wax parce que président vision am leer campagne nañu ci gagné nañu ci mi ngi ci yore réew mi yàlla indi mbas si àddina bi mu laal ñu mu nekk ci xeex bi lu ne jaral na ko donc ñun tamit nañ ko jàppale ci parce que communautaire yi démarche communautaire moo ko mën a régler comme ça ñu a responsable politique laaj bu mujj bi jëm ci euh, njàng jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin euh, euh, ndongo yi def nekk en classe d'examen war a dellu ci école yi Sénégal nag am benn réalité jàng nawet moom nekk difficulté ci yenn école yi naka nga gisee loolu ah c'est compliqué ah c'est compliqué mais nañu essayé taw bi moom yàlla moo ko moom waxul yenn jour la koy wàcce mais li ëpp solo ci àll bi école yi nga xam ne ay abris provisoires lañu amuñu ay tabax ay sàkket la ñu xool nu ñu leen mën a dugal leen ci préfecture yi wala yenn bâtiment état yi mu gën a jege même bu jaree ñu defal leen transport ay bis yu leen jëlee ci village di leen indi foofu ñuy jàng delluwaat xalaat la dañ ko ci dolli rek su mënee nañ adapté ko pour jàng parce sauver année bi moom jar na il faut ñu sauver année waaw di difficile jar ko parce que feebar bi moo ko indi donc nañ njàng ba sauver année bi rek buñ ko sauver rek alhamdulilah dayoon ñu mën a mënaat suñu bopp. wala beneen bi donc merci sant rek nga nuyul ma say latir te xam ni Thiès ñu ngi koy seetaan Sénégal ñu ngi koy seetaan adduna bi ñu ngi koy seetaan ñu koy sant di ko gërëm di nuyu caméraman bi aussi leen ñaanal yéen tamit Thiès Info ngeen dem ba gën a couvrir monde jërëjëf euh, mbokk internet euh, Thiès Info Ahmadou Bamba lii moo nekkoon ci kàddu gi euh, feggoon ak Adama Ndiaye ci wàllu caméra bi seen émission politique à Thiès amoon mbég di doon ci dalal Ibrahima Diouf nekk responsable politique bu APR jaajëfal leen bu baax a baax jër ngeen jëf